sëriñ Mbàkke soxna la sëriñ nii ñu màggal borom Taif noo ngi leen di jot li nuyoo bu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Mbàkke Taif jëme ko ci waajuram yi nga xam ni ñoo teewe jataay bi te mu yëg ni moo wara na doon seen ndaw ngir wuutu leen ci jataay bii ak jataay yépp ngir noppale leen ko ak dalal seen xel mu aman yéene itam ñëw waaye yàlla dogal mu am ngànt mu yóbbante ay nuyoo ci mboolem waajuram yi nga xam ni xam na ni dana ñëw fii ci jataay bi ci njiitul sëñ xaadim ak mboolem rakkam yi mbokkal jataay bi yépp di nuyu itam magi taalibe yi nga xam ni eh, sëriñ ilimaan yëkkati na kàddu seeni tur waaye di wax ndaw ñi nga xam ni ñooy wilaaya jeune te benn bànqaas ci biir kuréel gi taxawal liggéey bi tey bokk ci kuréel gi nga xam ni moom lañ koy saytuloo di ko ci liggéeyloo ci liggéey bu yàlla bi nga xam ni moom la fi maamam ji bàyyi sëriñ Seex wax ni kon mu ngi leen di soññ te di leen joxañ taxawaay yi nga xam ni moom la waajuram yi am ci liggéey bi ak engagement yu rëy yi ñu ci jël ak coono yu bari yi ñu toggoo te dara waralu ko dudul bëgg lu baax te wér na leen ni ñoom ñii di ay wajuram moom waajal nañ lañ leen waajalal nañ leen ngir ñu mën a am lu baax ci lu yomba yomb waaye nag naaguwuñu ca loola naaguwuñu ba moo leen yóbbee engagement yi ñuy jël ak coono yi ñuy toggoo kon nag muy wax ni mboolem ñi nga xam ni ñoom lañu ko booleel mu ngi leen di soññ bu baax te di leen joxañ positif ak taxawaay yooyu wajur yi am ba ngeen man koo dolli koo fedd lee ko seeni laxasaay ci mboolem lu liggéey bi laaj lépp dafa mel ni ndaw luy jéem di góorgóorlu jàmbaar ju ne ca kanam di ko soññ muy xool ca ay definam ak i doxinam dana ko soxla saa su ne mu wax ni nag ginnaaw yàlla bokk nanu ko baaxee ñu di ay nit ñoo xam ni xamal nañ leen lañ war a xam melal nañ leen lañ war a mel xam nañ kañu doon xam nañ la leen war xam nañ itam maamam ju baax ji fi indi liggéey bi yàlla bii fi ko liggéey bi toll woon ak li mu ci diggee ba tax ci ndigalul sëriñ Abdourahman ak ci njiitul sëriñ Moustapha Gaynde Fatma ñoom ñëpp ñu laxasaayu ànd ci gannaaw sëriñ Moustapha mi jiite liggéey bi ak lenn ci ay magam kon mi ngi joxañ ndaw ñépp ñu xool taxawaay ak yitte ak pëstéef yooyu kilifa yi am ngir dolli kooko saa su ne mi ngi leen di jégglu bu baax a baax wuute gi di ko jégglu jur yi di ko jégglu itam njaboot gi ñu ko booleel te mu war a xam tolluwaay yi ngir mën a rendre compte bu ëllëgee waaye mi ngi leen di soññ bu baax a baax a baax di leen xamal ni itam def ngeen lu mat a def defal ngeen ko itam ku ko mat a defal yàlla dogal na nag ñi nga xam ni ñoo fi teew di ay waajur xam na ni ñoo ko gën a xam ki tax ngeen di yëngu muy waajuram wa sëriñ Muhammad rakkam yi fi toog xam na ni ñoo ko gën a xam te euh, woote buñ ko wooteel bu ne itam kenn ku ne ci ñoom jaral na la ñoom ñii fi toog sëriñ Cheikh sëriñ Mouhamed jaralal na la sa jaraluk bopp koo xam ni fu ñu ko mën a wooteel te ñu boole la ca woote ba te yàlla man loola ko te nga wuy ci rawatina nag bi mu doonee lépp ci biir liggéey bi mu ngi leen di sant bu baax mu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Mbàkke soxna la sëriñ Mbàkke soxna loo def leen ni ñu màggal borom Taayif